alxuraan ak njàngum xasida barab bii nag fi lañ daan defee lépp fi lañ daan jàngee limi xasida yi ci lañ daan jàngee limi alxuraan yi fi mu ñu ngi ci suñ fukki kaamil ak ñett fi ñu xëy ak léegi amagun nañ ko daal waaw loolu itam dañuy dañ koy tëje fii rek ne di septembre tàmbalee lañ ñu commencé woon di jàngal ay kaamil booba léegi daanaka mën nañ na njaaréem ak Touba ak daaru manaan ak daaru muxti ak kokki ñooñu ñooy ànd ak ñun liggéey bi ci kanam tuuti boo ma boo delsee ñoom ñëpp seen i lim danaa la ko mën a jox ci wàllu njàngum alxuraan bi waaw léegi dañoo xamaloon ne njàngum moom du doy wax dañ fee jotoon a kaamil yu bare bari keroog wax ko ko ndaa seen liggéey bi da am na solo lool waaye nag njàngum alxuraan moom du doy loolu nag moo tax sax ñu gën koo yaatal ci ak yeneen dëkk yi am fii waaw. kon bu ñu la déggee day mel ni njàng mi moom yemul rek ci fii ci barab bi waaye daara yu fasantikoo ci biir réew mi ñoom it dañ ko fay taxawee di leen jottali lim bi. waaw. daara yi kaamil bu njaareem ñoo ci jiitu Baye Souley Gaye euh, sëñ Moustapha Guèye bu njaareem moom it euh, daara daaru manaan sëñ Touré Imaam daara daaru Muxti sëñ Maam Thierno Mbacke jiite ko ñoom ñëpp. ki ñoom ñëpp dañuy jàngale ay kaamil ba ndar ba xel koom dañuy jàngal ay kaamil su ko defee boo àggalee liggéey bi kenn ku ne sun barkeelu dana jógee ci nun dem ca ñooñee waaw nga xam ne kaamil yu baree bari la incha allah euh, buñ dajee ba bind lim bi xam naa ne dana bari lool lool julli gi moom la ñuy xewloo moom la ñuy indi dajale ko ci waañ wi di ko séddalewaat mbokki taalibe yi kon waañu boo ko seetloo waañu séddale du waañu waañu togg waañu noonu lay doxee bu ko defee euh, daara bu ci nekk booli yi nga togg da koy indi euh, sama yaay yi ci ginnaaw ñooy réceptionné ndab yi buñ ko réceptionné indi ko mbokki taalibe yi defar convoi yi euh, ñu teg añ yi yóbbu ko ci mbokki taalibe yi nga xam ne ñoom ñoo war a xewloo xewal yi nga xam ni dikk na ci ci kuréel gi kon bu day mel ne Euh, liggéey bi moom nos nañ ko lu jiitu bés bi ba nga xam ne daayira yi war a togg ak barab yi ñu war a toggee yëpp xam nañ ko ba nga xam ne loolu moom lu ñu teg ci aw yoon la organiser ko noo xam ne bu nu ñëwee rek loolu moom du indi benn jafe-jafe. waaw organisation bu mel noonu sax maanaam maanaam dafa fawxe sax ndax euh, organisation bi euh, dafa dafa dafa dafa professionnel de telle sorte que ni nga xamante ni nii lañ koy liggéeyee loo ci gis rek am na fu mu fu mu tege kenn ku ci nekk waañ wa ngay toggee lu mu sori sori am na ku lay réceptionné. ka lay am na fu mu koy yóbbu ba fañ koy séddalee maanaam liggéey la boo xamante ne nii maanaam ci ci ci pàcc par pàcc la ba keroog muy mat ni nga xamante ne nii egg ci mbokk taal bi nga xam ne ñooy yëpp demee ndax saa su ne lu ci nekk rek bu ñëwee am na ku koy réceptionné ka koy réceptionné am na ku mu koy jox ba mu yegg ci mbokk taale bi nga xam ne ñoom ñooy xewloo xewal yi euh, lépp muy daara yoo xamante ne nii moo nos ju liggéey gi muy daara yoo xamante ne nii bari na maanaam ñaar fukk wala lu ko ëpp ndax euh, lim bi yoruma ko nii waaye daara yi nga xamante ni ñoo tënk kuréel gi euh, ñoom la ñuy boolee noonu kenn ku ci nekk nag boo toggee am na jëwriñ juñ la booleel joo xam ne fa ngay yóbbu xéwal yi nga togg jëwriñ jooju it am na fi muy yóbbu yi keroog ni mu ci mbokki taali bi nga xam ne ñoom ñoo ñëw ngir ñi ñëw ci liggéey bi yëpp mën a xéwlu ci lu amul benn jafe-jafe noonu kon bu ñu ni nga waxee daal day mel ni tey lu mbooloo mi takku takku takku xéwal yu yaatu yu ko matale am na fi. waaw lu mu takku takku takku xéwal yu ko matale sëkk am na fi ba des sax ba des fi mu toll nii matale na ko ba pare organisation bi yaatu na yaatuwaay boo xamante ni fenn foo xalaat rek bool dana fa dem ndax euh, waañi ni muy ni muy ni muy doxee la waañ wu ci nekk boo indee indi na indi nga li nga indi ñu réceptionné ko xam booli yi ni mu toll ba pare xam nañ barab yi ñu koy yóbbu ba ci ñi nekk ci liggéey bi ñu koy ànd ak ñoom boo ci gisee day am lu mat juróom ba juróom benn ba juróom ñaari jëwriñ ñoo xam ne ñoo ciy nekk kenn ku ci nekk euh, convoi bu jugee dina mat euh, cinquante personnes wala cent bu ñu jugee xam na fa muy yóbbu ndab yi xam na fa mu leen koy tegloo ñoom noonu lañ koy disperser di ko teg ba li nga xamante ni ñëw nañ ci barab bi kenn ku ci nekk mën a xewlu ci li nga xamante ni noonu nga ñëwee ci liggéey bi. bu nekkee kii ñu jël leen ak ñoom ñu leeral koy recensé